waaw fii de mooy kër sëñ Touba Colobane. waajtaay gi nga xam moom lañuy ñuy waajtaay nga xam ne waajtaayu cant la ak sikkar di ñaan yàlla na ko sëriñ bi def ay yoonu yoon te yàlla bu kenn wuute. dañu am gan gu mag goo xamante ne moo ñuy seet si seet si goo xamante ne ay ngëneel la ci ñun ci ñun murit waaye ci ñun euh, jullit ñi waaye ci Sénégal gépp. jot na sama gudd moom kër gi bañ ko sañcee waaye xam naa daal kër Serigne Bassirou Mbacke la woon doomi Serigne Touba waaw di Serigne di law ba nekk kër Serigne Touba si Serigne Saliou Mbacke la nekkee kër Serigne Touba. ñu ngi si ndigal li bu sëñ bi ñëwee ñu ngi si ndigal li su demee tamit mi ngi ñu bàyyi baat ñu nekkaat si ndigal li kon nag li ñu si war daal mooy ni ab taalibe di séentoo kilifaam ñu fas yéene ko séentoo ñaanal ko mu assi ak jàmm ñu dala ko si jàmm mu dellu si jàmm. afi ah, lu mu gàtt gàtt gàtt rek loo fa laaloon sax war nga koo laal lalaat fa leneen waaw Serigne Touba moom fu mu mën di jaar rek dañu xam ne moo fa jaar kon nag jaadu na ñu yeesalaat defaraat barab bi li ñu si war a defaraat ñu defaraat ko ndaxte lu mu fiy nekk yëpp fas yéene nañ euh, ba benn jafe-jafe du fi am kon nag si saytu boobu lañ nekk. sëriñ moom bu ñu ko waxee moom ab sëriñ moom ak i dongaam ak i taalibe ak doomam moom ñooy ànd waaw du ànd moom dong fi lay ne ak ñi muy àndal yooyu yëpp fàggu nañ ko si barab bi waaw am na fi barab boo xam ne fi lay ne am na si barab boo xam ne tamit ñi muy àndal fi la nekk. waaw loolu moom dañ koy booy bàyyeek waa police ak euh, sécurité sëriñ bi ndax yaakaar naa ne jël nañ si matuwaay yu mat sëkk yoo xamante ne nii sëriñ bi dana ñëw si jàmm. dem Mazalik si jàmm te benn problème du du si am ndax jël nañ si ay matuwaay yu baax a baax a baax. daanaka ci biir jumaa ji fu mu toll nii sax dañ ko tëj la grande mosquée ñu ngi ci ñu ci defaraat ñu ngi ci ci ci defar fu mu toll nii li ngeen gis nii sama ginnaaw mooy fi nga xamante ne sëñ bi fi la war a toog incha allah jàkkaarloog euh, euh, taalibe yi jàkkaarloog jàkkaarloog ñëpp ngir mën a mën leen ñaanal nit ñi ko ziyaare leneen li ci des mooy également ci wàllu. Euh, set setal bi boo seetloo daayira yi fi nga xamante ne mooy euh, avenue Cheikh Ahmadou Bamba muy HLM yeesal nañ ko lu jóge tamit Masalik ba dem kër Serigne Touba gi vraiment xale yi yeesal nañ ko. def nañ sax un CRD boo xamante ne gouverneur de la région de Dakar moo ko moo ko présidé moo jëwriñ Mbackiou Faye ba nga xamante ne wax nañ ci lépp la xam fànn boo yaakaar rek bu war a dem ci wàllu organisation bi. waxtaan nañ ci ba trouver ci ay solution solution yi nag bëri na bu ñu boo ko seetloo ci wàllu sécurité xam nga ci ouverture bi ñëpp gis nañu li fi ñëwoon ci mbooloo daanaka lu tolloog ñaari million ngi nit daje nañu ci benn waxtu et dans un périmètre boo xamante ne très réduit